ordre national des pharmaciens dafa joxe ndigal ne pharmacie bu ci nek ci dooleem ci mën-mën ci zone bu mu nek mu xol lu mën tibb ci gafagam nous dugal ko ci xeex bi ñu boole ko jox ko pour mu jàppale ñu ci xeex bi bi loolu ñun pharmacien yoo fi dañu dajalo ku ci nek mu jël ci dooleem ñu yebal ma man mi nga xamné ci sama modeste personne man lañ def seen jiit ma jël enveloppe bu duun dem déposer ko ordre des pharmaciens enveloppe bobu non hors des pharmaciens dana ko jox li ñuy wax les ayants droit parce que c'est une instruction qui vient du président de la République du Sénégal donc xeex bi tàmbaluñ ko tay tambal nañ ko demb def nañ ko tay té ëlëk tamit ñaan nañ yalla bu féké yemu fi ci liñ ñaan yalla moy mu yam fi mais bu féké yemu fi tamit heure bi nga xamee ne yaakaar nañ ne war nañ ci mën a def suñ doole war nañ ci mën a def suñ xalaat war nañ ci mën a def suñ temps danañ ko def bu soobee yàlla ndax xeex bi xeexu ñëpp la du xeexu ma Samba wala ma xeexu ma Demba. ma di gërëm maanaam pharmacie association pharmacien yi dëkk bi ñu def nii parce boo xam ne geste boo xam ne vraiment daf ñu touché parce que ñoom suñu nawle lañu ñoo bokk liggéey bi ñu toog ngay liggéey be sa nawle ñëw dimbale la loolu vraiment loolu lu am solo la li ma bëgg wax aussi deuxièmement lii du lu njëkk parce que Philippe Senghor bi fi fi inondé am nag ay at ñoo fi ñëkkoon ñëw pour dimbale ñu loolu du ma fàtte mukk tey nag li ñu def nii dama kontaan ci geste bi aussi kontaan aussi ci geste bi li mu toll parce que daa bëri man xalaat xalaatu naa ndimbal la mais ndimbal bi xalaatu moo ne dina toll nii moo tax ma gën a kontaan et que li yëpp nañu aidé maanaam ñu xeex feebar bi xaw xew léegi Sénégal ci àdduna bi yëpp xeex bi euh, sur le plan stratégique parce que dañu xamné ne euh, Sénégal euh, même aduna bi réew yi nga xamné ñoo ëpp doole ci aduna bi mënuñu dékku jangoro ji bu féké dal na doomu adama yépp légui ci Sénégal autorité dañu réfléchir ñu xamné aujourd'hui ak stratégique bi ëpp solo pour xex jangoro ji mom moy l'acte de la prévention te prévention boobu comme jàngoro ji nee nañ dafay jaar ci ay loxo jaar ci ay gët wala ci bakkan wala nga mën ko noyyu wala dara moo tax gis nga doomu aadama yëpp ñu ngi sol ay masque ñu ngi sol ay gants ñu ngi rax seen loxo dañ ne ci wàllu woowu dañ fay intervenir ñu jàppale ci doomu aadama yi particulièrement les prestataires de soins ba nga xam ne ndimbal li da mën a egg fi nga xam ne war na fa mën a egg